voilà donc comme ni ngeen ko nous ñu ngi cité Cyprès donc dafa directement avec cité Serigne Mansour donc ça fait 4 ans même problème bi la dund chaque année donc chaque année bu avons mu bëre mu touti inondation lañuy dund donc ni ngeen ko gisee ni jarul explication bu bëre inondation bi ça fait 4 ans chaque année nous voilà ñu casse ko dénoncé ko mais on constate que affaire les choses ne bougent pas voilà les choses ne changent pas fi mu tollone fa la tollu ba légui donc lool dal mom moy situation bi ñuy dund 92 familles

kon problème yi bokul ndox bi bu nekké ci mbedd bi ñu mais ça va encore mais c'est biir kër fi ngay tëdd fi ngay fanan té bu ngeen xolé fii nii dafa am ay ay niche courant bi jour bu fi bu fi problème la bo xamné aussi war nañ ko wax donc nañ gaaw solutionnel ñu problème bi parce que am nañ ay solution péage mu ngi fi jege war nañ mëna drainer ndox bi mu jëm fofu ñun pour ñun tay ji li warona fekk warona warona fété bord depuis très longtemps euh, problème bi mi ngi posé wu ça fait plus de cinq ans ñu ngi tenir ay réunion ak ay autorités ay autorités dañuy dig ñu am yaakar bu reuy suñu xalé yi suñu jugee né dañuy kaas dañuy ki ñu ne leen toog leen noppi leen lo leen gis autorité soy wax ak mom da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay yaru loolu lañ non loolu lañ non def mais ñun euh, gatché lañ ci am parce que actuellement lepp lu ñu leen digoon ñom xalé yi ni dara am aussi mais un an ngi nii ñu ngi wax ay projet projet projet mais am na situation xamné ay situation d'urgence la wa mais du ñom ñoo waxoon fast track mais ana fast track bi notre, cher président, c'est un lion qui dort. Maintenant, il est temps de se réveiller. Parce que nous, nous,